di nuyu sama doyen Daouda gissé diko féliciter également ci initiative bi mu taxawal fi nga xamné ñun ñëpp la ko defal. Mhm. Mayor ku la xam-xam Karim wad fofu lay tambalé ani Karim wad mi ngi Qatar. mi ngi Qatar. Mhm. ñaata at ngi ni mu nekk bitim réew. waaw euh, huit ans Karim wad deggul kërëm Dakar. lu ko waral. Macky Sall falu. jàpp ne dafa war a néewal doole waa kër Ablaye Wade muut lay tànn vingt cinq personne ne dafa leen di topp boole ci Karim ca Karim Wade kese la ñu woo moom la ñu topp moom la ñu jiiñ ay milliers ay milliers et des milliers de milliards ba sénégalais yëpp seen bopp yi ak seen nopp yi fàtt waaye au finish bi ñu demee ba ci biir li ñu doon wax yëpp amul. amul benn preuve wala benn dërëm boo xam ne génnee nañ ko ne lii Karim moo ko moom. Hmm. ñu mujjee sax dem ba kër papaam bi nekk point E ñu teg ci loxo. boo déggee man la huit ans ngi euh, daanaka nekkul Sénégal parce que nekk na Sénégal trois ans et demi yoo xam ne ci kaso la nekk. Hmm. ci bi mu génnee kaso itam demul këram. Macky sàll ak ngàngooram ak ay pexeem ci xam ngeen ne nguur dafa am doole fexe na ba génnee ko réew mi exile ko boobaak tey. mu nekk bitim réew moo tax boo ne ma anamu xam nañ ne mi ngi Qatar waaye xam nañu également fan la ñu jaar ba mu dem Qatar du woon yéeneem du woon bëgg-bëggam waaye loo xam ne lii dañ ko ko imposer la mu nekk en exil. Mm-hmm. boobaak léegi nag lu bari xew na fi li ma mën a wax rek ca xam ko mooy incha allah mi ngi waajal ñëw ca le moment opportun daañ ko gis Sénégal. mi ngi waaj a ñëw donc euh, yàggatul xëy na 2024 dina yegg si Sénégal. wax nga ni non avant 2024 quand même. wax nga ni parce qu'il est candidat en D'accord. accord euh, wax nga ni lépp luñ ko tuumaloon tey jii yoon faas na kon kay lu ko non waxuma ne luñ ko xam nga mm-hmm. dafa am ak mm-hmm. dafa am ay attekat yu jub ak ay attekat jeng. ay attekat yu ñu ak ay attekat kenn mënu mm-hmm. malheureusement moom dafa tombe ci ñoo ak de répression de lancement illicite muy euh, ab tribunal bu bon bo xamné président Abdou Diouf moo ko créé woon waaye ba ko créé it da ko parce que xamné né tribunal bu bon la président Abdoulaye Wade nek fi fukki at ak ñaar taxul moom itam mu utiliser cour bob kon Macky Sall bu ko jëlee diko utiliser pour règlement de compte pour acharnement pour chasse aux sorcières contre la famille wad fam contre la famille libérale bi nga xamné ne lu mu am tay ñom la lu mu xam tey ñoom la fu mu àgg tey ñoom la loolu dafa doon loo xam ne Sénégal mosu ko xam ci jamonoy Senghor Sénégal Sénégal mosu ko xam ci jamonoy Abdou Diouf Sénégal mosu ko xam ci jamonoy Ablaye waat yooye fayantoo yooyu ak topp nit di ko ëpp doole di ko ko jaay mooy law ba heure bii jafe-jafe yi nga gis ci réew mi yëpp loolu moo ko indi. ndax réew bu amul in bu amul justice. Mhm. am injustice réew ma pour mu dem kanam dafay jafe. kon di kon ñu xam ne. àtte mhm. euh, bi ko àtte jaarul yoon. dañ ko ëpp doole jiiñ ko lu amul ca ba tey wanewuñu preuve lu koy firndeel mooy lu ëpp fukki atte fukki procès la Karim dem ak ñoom bitim réew muy Bordeaux muy euh, cour de justice de la CEDEAO muy euh, le tribunal de Paris ak feneen ak feneen ba ci Nations Unies ba ci groupe de travail des Nations Unies ba ci euh, comment on l'appelle groupe de travail bi nga xam ne moo yore les droit de l'homme hmm. bu Nations Unies foofu yëpp ba mu fa demee daf leen daan ba ñooñu ne ko nañu ko attewaat atte bi baaxul nañ ko ndàmp parce que dañ ko tooñ nañ ko defal dàmpaay ci rétablir ko ci ay droit bu ñu fa waree fanaan fanaan nañ fa gunge ko di yaakaar yoon. Hmm. ànd ak moom ci tribunal bi bu ñu fa waree fanaan fanaan fa gunge ko di yaakaar yoon ànd ak moom ci procès bi yëpp ba ñu xëy tëj ko ba yoon tas suñu yaakaar ñu xam ne waaye bi muy tas suñu yaakaar aussi tas na yaakaaru Sénégal yëpp parce que yaakaaroon nañu ne nit boo koy tuumaal da ngay joxe preuve. bala may tëj euh, chapitre Karim Wade dina la laaj Mayoro ana Ablaye Wade. Ablaye Wade mi ngi Versailles bu yàggul la fa dem ci ay weer yu néew ñaari at ci ginnaaw mi ngi woon dakaar ndax hmm. dakaar la dëkk. waa tey jotul yéen ngeen noppal góor gi. góor gi mooy noppal boppam moom moo xam yaramam moo xam mën-mënam moo xam lim mën ak lim mënul te fii ba fi may wax ak yow yàllaa nga koy may wér yàlla na yokk yàlla nga koy may tal yàlla na yokk yàlla nga koy may xelam.